ah <laughs> damay moromam mag maa ko mag. beneen actualité la ñuy demaat moo nekk kilifa ak eh. waa leeral TV sunu naataango yooyu nekk leeral. Mhm. Euh, kilifa jékki-jékki ñu gis ko ci oto. Mhm. moom ak benn xaritam ñu ne dañ ko dafa dugg sax ci mbirum lux mbootu visa. Mhm. ak mbir yooyu. ba moom génn na teggi tuuma. sa xalaat ci actualité boobu tamit. waaw sama xalaat ci loolu moom man je suis la. tey képp koo xam ni da ngay nekk ci showbiz di si yëngatu. wala nga nekk ci n'importe quel métier booy liggéey boo xam ne daf lay exposé mm-hmm. am na yu bëri yoo xam ne da nga ko war a moytu mm-hmm. est-ce la ma nag moo def wala deful mm-hmm. parce que la comme génn na weddi na ni loolu amul am na vidéo bu génn ñi ngi naan amul ak amul loolu li ko mën a àtte mooy peut xaw ma ndax am na yoon wala amul yoon est-ce la mais daal man tey jii dama koy chaque jour bàyyi au bénéfice du doute. Mhm. du ma ni moo ko def. Mhm. du ma ni defu ko. Mhm. comprendre la mais dina servir leçon yeneen artiste wala yeneen mbër wala yeneen nit yoo xam ni c'est des. des ay célébrité lañ pour ñu gën a maytu. parce que man mii di wax ak yow chaque jour am ay proposition yi mel noonu. ay nit yu ne lañ may proposé. dafa dem ba nga xam ni tey da nga may proposé loo xam ne sax dama arrangé. mais merci laa lay wax. parce que nit ñi dañu yaakamti toroxal doomu aadama. dëgg surtout ku yàlla jox tur mhm. xam nga teraanga du xaalis kese mhm. ku yàlla jox tur jox la cër boo génnee nit ñi diwa nga ne dem loolu teraanga la mhm. bul nangu kenn yaxal la ko mm. bu la ko xaalis jaral bu la ko succès jaral bu la ko jigéen jaral léegi nag li ko dal dañ koy bàyyi au bénéfice du doute mm. ba keroog ñuy am confirmation ni moo ko def mais daal man xam naa ni sama frère la maa ngi koy ñaanal maam yow sa kilifa sa daa sama sama la suma rakk la sama rakk la mu raay ko mhm. suma rakk jox cër la booy bu ma la sama rakk la mais quand mu nekk benn da doon ñëw sama kër di ma seet si ma koy conseil ñuy waxtaan sama rakk la d'accord mhm. mais quand maam te booy bu booy bu yow bu dee yow mi ko xam waa mhm. est-ce que yow mi xam fi kilifa comme sa rakk la fréquenté nga ko est-ce que Euh, comme jot nga ko fréquenté tuuti gis nga ne moom mun na dugg yooyu wala mun na nangu ci xam nga nit euh, xam nga nit par rapport yow yow mi xam moralité personne xam nga nit mënoo ko juger ci dara xam nga tey da ngay gis nit ku noppi nii mhm. nga ñu ne rey nañ nit ñu ne eh, moo ko rey mhm. kenn xam nga wax mhm. kenn xamul nit li nelaw ci moom moo bëri munu man tamit man du ma du du ma toog caméra yi tàkk tiim ma rek may fenal nit sama booy la am nañ relation yu baax mbaax laa ko xamee booy bu baax la dëgg-dëgg ne yàlla. Mm. mais li ko dal nii tey jii kenn xamul. Mm. man mënuma taxaw ni defu mënuma taxaw ni moo ko def. Mm-hmm. le conseil que je lui donne moom mooy na fexe mu leer. Mm-hmm. parce que am na ay tâches yoo xam ne bu ñu la ko tafalee sa di ginnaaw yaa koy raxasal sa bopp. Mm-hmm. même bu gaa yi bëggee bàyyi mu sedd sax na ko jaral mu dem ci yoon parce que moom dafa nekkoon ci oto. ñu filme ko à son insu mhm. na porter plainte dem ci yoon mhm. bu demee ñu àtte mhm. ñu toog kooku génn ay preuve yu wane ni jaay na visa wala jaayul wala genre yu mel noonu xam nga bu boobaa day leer man bu ma ko nit defoon damay dem porter plainte brigade de recherche parce que dëkk bi ñëpp xam nañ fi ngay jaar pour régler sa problème filmer nañ ko à son insu wax na fa ay wax d'accord na nañ ko leeral bu mu leer nañ mais ci biir waxam tamit ñu ngi ko dégg mu ne le fait que ñoom ànduñu ak nguur bi peut-être loolu moo waral tamit lu ci bëri ñu leen koy jéem a soxna si xam tamit Sénégal dafa am lu bees lu fi xew mhm. képp ku def njombe rek wala njuumte ñu ne buñ la jàppee wala nga def dara rek nga ni non dama contre pouvoir bi ànduma ak pouvoir moo tax mais loolu bu yàggee dëkk bi soxna si kenn deetul xamee ku juba ku mhm. jubadi mhm. ci pouvoir bi ni ñu mën a taxawee ni ay nit dañu nekk ci pouvoir bi ay sàcc lañu noonu la nit nekkee ci ay opposition bi nekk ay nit yu jubadi soyons logique Sénégal il faut que nit ñi dindi affaire wu tempérament affaire u non man dama contre Macky Sall dama bëgg mu daanu dama bëgg mu def lii rek léeg képp ku ñu jàpp parce que bu boobaa dinañ dem ba réew mi bu ñu demee ba loolu am dinañ dem ba nit jël réew mi ay bandi kese jiite ñu di def lu neex ci réew mi kenn de kenn dootu xamee ko jub ak ko jubati il faut que yenn sax yenn émotion yi ñu dindi ko c'est important parce léegi ku def njombe rek da gis ku laal doomu jàmbur violé ko wala nga gis ku def sàcc wala nga gis ku kii ñu téye ko rek ñu ne non dafa contre nguur gi moo kon yow moom ci gis dañu war a dem ci yow en ko jàppee comme sa frère lan nga lan nga ko ci conseil déggoo li ma la wax mhm. kilifa xam lan la war a def mhm. moom warul xaar ñu koy traduire en justice mhm. moom dañ ko filmer à son insu na porté plainte ki ko ki ko ki ko filmer ñu dem ci yoon kooku génne ay preuve moom mu génne ay preuve am wan Sénégal yépp ne man kilifa nit ku jublaa mais bu mu ko kal nii damaa contre nguur gi mhm. moo tax ñu bëgg maa jàpp loolu mhm. su ko defee rek su ko defee dina am ay ñoo xam ne même ci opposition bi lañ nekk mais duñ ci ànd ak moom man grand frère am laa sama rakk la mhm. te billaahi su ma ko yéenee kaso yàlla naa ci njëkk a dugg jàmm rek laa ko yéene gis na même Ousmane Sonko bi ñuy wax nii Ousmane Sonko yéenewu ma ko kaso yéenewu ma ko dee jàmm rek laa ko yéene ñoo bokk Sénégal c'est jeune su waxee loo xam ne ànduma ci j'ai le plein droit ma taxaw ni lii ànduma ci. am nga ci droit Sénégal bu nekk am nga ci sañ tamit bu dee actes yi wala faits yi du leen jox raison parce que bu ñu ne kilifa euh, contre na Macky Sall ñu gis ne dara dal na ko Ousmane Sonko contre na Macky Sall dara dal na ko euh, journaliste bi nekkoon Walfadjri Pape Ndiaye contre na Macky Sall dara dal na génn na sax boy dama lay wax est-ce que ñoom tamit bu dama lay Guy Marius Sagna vito bu ñu gisee yooyu di répété wu di répété wu te yaa ngi nii foo toog man du ma sàcc parce que moom contre état xam dama lay du ma sàcc violeur du góor jigéen du ma subordonné du ma nit ku ñàkk fayda damay liggéey mhm. soxna boy man xam a kañ laa commencé liggéey hmm. bi ma dalee liggéey ak léegi ëpp na trente ans marché Tëngéej laa nekkoon yor taabal di jaay hmm. waa Tëngéej jëng may seetaan hmm. dama xoslu sama live ba pare dama am dignité man nguur gi laa àndal damay taxaw yenn saa yi ñu laaj ma ci ay ministre mag saal ma ne ay baadool lañ bu lu ma àndul ci nguur gi man lu ma àndul man mag saal jox ma xaalis joxuma dërëm faluma moom laa faral nag ñaari ginaar sax bu ñuy xeex bu la neexee nga xool benn ginaar. nga xool ko ba mais parce que gis naa ci moom yar. Mhm. gis naa ci moom teggin. gis naa ci moom ku mën a liggéey ku am ay projet pour le Sénégal te du tontu Macky Sall taxaw nañ fii sax ni famille am dëmm la. dañuy lekk ay liir wax ko lu non mais ci non non dama lay wax non débat bi fi ma bëgg mu ñëw mooy yéen ñi nga xam ne débat bi du yow yaa ko ah, yóbbu foofu xam nga débat bi fan la non non non non non boy man maa la mag <laughs> man sama débat doo ko yóbbu fenn xam nga lu tax mënoo ko yóbbu fenn ah. da nga may poser question ma tontu la mm-hmm. gis nga man tey jii dëkk bi yow yaa ngi nii toog fii di animé kenn diiñu la dara mm-hmm. boo deful benn njubadi ci réew mi mm-hmm. gis nga Pape Ndiaye boobu j'ai rien contre lui mhm. mais beneen sénégalais moo ñëw ni dafa jël xaalisam mais yéen lu tax léegi hmm. yow yow waa léegi Sénégal man mooy ban dëkk waa léegi yow da toog jël yëfi jàmbur yow nit nit beneen nit état ji ñu la de beneen sénégalais moo ñëw ni da maa triandé <laughs> waa léegi yow nga ne état bi moom moo bëgg a jàpp Sénégal Sénégal léegi Sénégal booy booy non c'est non booy kaay ma mhm. mhm. sax ngeen koy poser ci presse parce que ñi ñu jàpp fii ñëpp. Mm. amuñu problème ak police amuñu mm. problème ak gendarmerie. Mm-hmm. amuñu problème ak état. Mm-hmm. ab sénégalais comme ñoom la ñu amal problème. Mm-hmm. Sénégalais bi ñëw porte leen plainte ni dafa jël sama xaalis ñoom ñu dem taxaw ni non dama contre Macky Sall moo tax seen waa léegi léegi kon kay léegi sàcc yëpp nañ nekk dem nekk opposant wala triant yëpp wala violeur yëpp ni mu léegi léegi sàcc yi ci nekk ci dëkk bi yëpp kuy bandi ci réew mi wala ngay reykatu nit rek demal nga opposé ji d'accord loo def ci njubadi rek nga ni léegi man damaa contre nguur gi moo tax léegi loolu loolu mooy ban ko war a njëkk bañ mm-hmm. parce que kenn warul nekk ci seen corps de métier bi ngeen nekk mm-hmm. dem nax benn sénégalais. Mhm. wala benn sénégalaise. Mhm. sénégalaise bi porté ko plainte yéen ngeen taxaw ni non. Mhm. kooku dafa contre macisal moo tax léegi daal contre Macky daal léegi moom mooy kii bi mooy marché kii bi. ñu koy tuddee non mais loolu du suñuy kàddu nag kàddu askan bi la ah, waaw non du kàddu askan gis-gis loolu du kàddu askan bi kàddu triant yi la dañuy nekk ay triant nekk ay naxaatekat jël yëfi jàmbur ba pare mhm. bëgg a taxaw ni bëgg a laqatu ci ginnaaw Macky Sall soyons logique mhm. loolu ban Sénégal lañ nekk léegi kon daal nit mën na jóge fee rek ñëw fii fekk fii seen fii mu saccagé ko daaneel caméra yi daaneel fii yàq fii dem yoonam mu ne non man dama contre Macky Sall d'accord non ça est logique waaw ah, maam <laughs> xam naa il nous donne des leçons de waaye ñun moom li lu sénégalais di laajte rek la ñuy laajte ñun noonu la gaa bi maam ñun dañ leen du ma journaliste waaye damaa yàgg ak ñoom de ñun tamit duñu ñun tamit politicien ñun duñu politicien man moom ba ma amee yàgg na maam waaw mais bi yaa ngi koy doog a yaa ngi doog gën a gën a nekk duñu politicien duñu artiste mais tamit ñoo ngi bëgg yàgg ak ñun tamit mm-hmm. ah, mooy li sénégalais di laajte rek la ñuy laajte boo toogee après nga tontu mm-hmm. ah, dañuy jàll tam ci beneen sujet bi soxal sénégalais mooy le cas Léna Gueye mm-hmm. ah, di dem ci mbirum artistes yi CNRA ak infidèle du ma ne bëgguma sax duut baaraam benn nit waaye comme benn nit la ko la concerné. Mm-hmm. dañ ciy profité rek nga joxaale sa analyse wax ak sénégalais. non analyse bi ma uh-huh. ci def moom mooy. leena miinuma ko trop. Mm-hmm. xam naa ko. Mm-hmm. je connais sa famille am na ñu ma xam ci ñoom ci famille am. mais moom miinuma ko. mais le conseil que je mooy. am na seen yoo xam ne même nu la ko bëggee joué loo Sénégal. waruloo ko nangu même bu doon bitim réew sax waruloo ko nangu parce que. doomu jullit nga xam nga euh, seen boobu. mun nañ ni. mun nañu wane benn partie à partir de omam jëm ci waxu tànkam mm-hmm. ñu wane maillot de bain bi mu sol mm-hmm. après ñu wane waa ji muy summi foofu mm-hmm. mais xam nga du summeeku carrément parce que loolu ñu ñëpp dañuy jouer ay clip xam nañ mais geste bi ni ko gars yi di monter ak montage beeg yooyu dafa rafetul ci sunu doom yi ci sunu xam nga dëgg la xam nga léegi Sénégal nit ñi dañu nag bëgg a buzz waaw ku nekk bëgg a siiw ku nekk bëgg a nekk de devant de la scène xam nga benn rôle bi sax mën nañu wax ni kaay ñu joué ko nga man man ñemee naa ko comprendre la xam nga man dama woy benn woy